li nag nañ ko doon tàmbalee nii nuy nag kilifa diine yi nga xam ne dañu yor seen kurus di ñu ñaanal te rawatina ci émission bi ku ci mel ne Cheikh Boli Sama chef religieux à Touba Keñoto Kër Sëñ Saliou département de Bounkiling région de Sédhiou nuyu nañ tamit Alaaji Moustapha Silla chef religieux à Taïba Marsassoum suñu xarit la suñu papa la ñu koy ñaanal fan bu gudd waaye Alaaji Cerno Sama Sa Morabi chef religieux à Matam ñu koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram di ñaanal tamit taalibim bi nga xam ne mooy Mody Anne Richard Toll grand technicien ñu koy yóbbante ñaan ci ki nga xam ne mooy Alaaji Cerno Sama Sa Morabi mu ñaanal ñu ci télé bi rawatina ci émission bi nga xam ne moom mooy Kouthia Show alaaji Modibo Trocé Maymouna Tandigora chef religieuse grand marabout soninké ñu koy nuyu de Paris foofu waxtu bi ñuy wax ak yéen ma nga ca Paris sama xarit la kooku nag xam naa ne bu ñu bisee fii ci Sénégal bernde yi nga xam ne ñu ko war a berndeel kooku maa koy organisé ndax sama xarit bu wër la di grand marabout soninké nekk ca Paris alaaji Ousmane Ndiaye chef religieux ak soxnaam Adja Mamboussa Cissé nuyu nañ ko baax ak ki nga xam ne nag moom mooy raxu euh, mag ci Fallou Dieng bu jigéen ñu koy nuyu Fallou Dieng magam bu jigéen ñu ngi koy nuyu bu baax suñu xarit la dëkk ca Anne Maris nuyu nañ Serigne Moustapha Sy bu sëriñ Abdoul Aziz Sy Al Amin ca Tiwaawan suñu xarit la di nuyu tamit Pape Gadiaga wëlëram ak Cheikh Mansour Diouf euh, chef religieux nekk foofu ca Yoff sëriñ Cheikh Amir Dial Seck chef religieux ca Daaru nañ ko bu baax moom ki nga xam ne mooy sëriñ Alpha Ndiaye Dabaye euh, nekk foofu ca Thiès sëriñ Alpha Ndiaye Dabaye di borom sanc bi te dem koo xam ne nag euh, il fait partie des plus jeunes marabouts super Thiof foofu ca Thiès ñu ngi koy nuyu Adja suñu yaay Kumba saw nekk foofu ca Thiès ñu ko koy bu baax ñoom ñëpp ñu ngi am mbégte dañu dem seeti Macky Sall la tontu ya nga xam ne tontu na ko ka nga xam ne mooy yaa jaame. asalaamaaleykum debbo pulloye ma aleykum salam mbalol bisimilla bañowo mbokk yi nga xam ne yéen ñuy déglu mi xam ne moom la def duñu ko nangu tey duñu ko nangu suba ndax Yaya Jammeh nekk na nit koo xam ne dafay nappe donc nappe yi nga xam ne moom la yaakaar ne bu ko continuer di napp yenn président africain yi man ci lay bokk moom bu fekkee ne fàttaliku ne sama diggante ak moom bi ma faloo nekk président moom laa jëkk seeti donc moom lii nga xam ne moom la waroon def mooy feddali coloré suma diggante ak moom ñii nga dégg ñuy way ci suuf di ay halpulaar ñoom ñoo xam fi ma cosaanoo moom ñi nga xam ne ñooy séeréer yi bu dee ci kal la man may seen buur te séeréer yi bu ñu nekkee buuru joolaa yi kon ki nga xam ne yaay buur buuram bu nekkee buuru keneen yaay buuru ko moom jolaa man tukulóor la ma nekk buuru buuram waruma mën a yëpp ci dara donc ki nga xam ne mooy Yaya Jammeh ñaari dëkk yi benn dëkk la wax na ko dëgg la waaye du ñu ko bàyyi mu ne ci wax jooju te du ko dëggal ci suuf di ko dëggal ci kaw bu dee ci suuf mu ñuy ŋàññi donc li nga xam ne moom laa bëgg moom Yaya Jammeh mu def ko mooy mu bàyyi wax ji ñu bàyyi population yi dund li ñu war a dund mag moom ñu daje ci frontière Karang bi ñu defante ko ba mu saf saf ndax Yaya nekk na koo xam ne donc man ragaluma ko jox naa ko respect fonk naa ko warul nekk koo xam ne dafay téye laminam di wax fii di wax fële naan Macky Sall war a lale li ma wax ambassadeur bi bu ko defuloon kon tey ba tey mu ngi Gambie donc réew mi boo noppee ñu ne Macky président bu noppi la soo waxee ñu ne mag Macky dafay nappe léegi moom jola man tukulóor la séeréer la ma bëgg ko xamal ne ñii nga xam ne ñooy way su may mbokk nañu bu samay mbokk musaan dem di xare ñoo doon ànd ak su may maam di xare bu dégloo léegi dina dégg ñu may tagg kon bu ñemee moom maa ngi koy jox frontière karang suba ci guddi ñu taxaw ñu bëree ñu xeex ñu kotante ñu dugg ci ayca ardo wayal denndiraɓe ko goto de min ɗeɗo ɗiɗo lebbi tati mi warani neɗɗo keftomina e muɗum miɗo negoyande joni e wuuro he mi ñoraɓe ɓe heftana e mabɓe ɗi soɓe so yiiɗi yoɓe dawa ɓe goppami ko ɗen ɓerɗe mbaldanmi so ɗenɗi wattani kam min wiide no funtami pullo no hoɗi ɗo somi yeehi ɗo mi tawani ɗum pullude somi artimi heftannayi ɗi haalamboyo accudamay sakki ɗiɗa ɗumen kadi bambaɗo wi denndi acci ko jewtanta amadou ko amadou wi jommu hakkude meɗen kay pullo nanɗon hoɗi ɓuurma nayyi faɗɗuma faɗɗuma nayyi amadou wi ɗum noon jaaje bambaɗo miɗe ñaaguima hirde fantan hannde so weeti mi tawa mi yaɓowde dayat somi tawani ɗon pullo mi fuɗa laaji somi atti mi heɓtan nayyi wuuro ngo so yiiɗi yoɓe dawi ɓe jaaje bambaɗo waale fanta o wiyamba donondi orinayi paynori aynaɓe nayi felle jigaje ndoma yaɓa jaruje donc gis nga ñi tagg ma ba sama yaram bi commencé di sekki yow Yaya Jammeh bu fekkee ne li ngay woote mu ngi ci yow na nga ñëw ci karang ñu daje man Macky Sall président du Sénégal secrétaire général bu APR membre ci Benno Siggil Sénégal yoonu yokkute yow góor nga man góor nañu daje ci frontière bi ñu bàyyi population yi dund jàmm ji ñu xeex nga woo joolaa yi ma woo tukuleer yi woo séeréer yi ñu tase ci frontière bi ma won la ne diggante dëkk yi du ñun ñoo koy yàq ñun ñaar du population yi ñoo koy yàq mais mag yow ñoo koy defante ku say mbokk tagg ba nga yëg sa bopp boo tuuti woon di nga rëy boo rëyoon di nga pata boo pataay di nga toj kon yow Yaya Jammeh man Macky sàll donc li ma bëgg mooy nga bàyyi wax ji ñu tase ci frontière bi ñu defante ko ba mu saf sap te boobaa ñii ngay dégg ñu way ñoo may gunge te buñ ma wayeele dina am nu ma mel ni ma mel dinaa ko jëfee sa kaw ndax li ngay wax ak li ngay def yëpp nappaate la te man duma ku ñuy napp ayca woyal daj bambaɗo min ndemi yari oɗo ko amadou yimbomi haari o musidka amadou ko maccuɗo hakke bonde mbaadi koye ɗum noon nden sa yarani kosam ɗam majjugal hokku puccu ma ngu kosam ɗam mi anda to lumbiɗa ngu puccu kam kono ngu en andi kosam ngol ɗo leebol no wayno leebol kosam ni amadou ɗifti laal ngal hokki puccu ngu puccu ngu yari kosam ɗam ma haari no puccu karɗo ha watta ni gati laal ngal ƴeesi ɗum e jogori helde ɗum debbo pulloy maccuɗo danganam puccuma woto hel laalam amadou mba nanggu laal ma debbo pullo dogi yettima hetti laal woto pucci ngu hel oy koni maccal ngal ko an reewi ha mayɗa anne la pucci aɗa daara pucci hen laalam a nangganta kam mi amadou mba aɗa nanggu laal ma fof mo sikka amadou ko maccuɗo ƴetti laal omo duka o faati kaggu makko to